dañu dañu ñëwoon rek euh, siyaare si sunu sëriñ sunu mag sunu doomu baay sunu xaritam di sunu kilifa ndax euh, am sañ-sañ bu mu am ci ñun sañ-sañ bi moo di waxtu woo xamee ni dégg na lu ko neexul ci ñun du ñu def ñuy woo te loolu sañ-sam ñam la li mu doon rappelé léegi mooy nee na man xaw naa tudd man sóor ndax jamono yi nga xamee nii Euh, maa ngi euh, gane àdduna dafa tasanteeg Serigne Mansour gane si woon sam papa te teewul am naa mag ñoo xam ne 1929 la judd papaam lañ ko tudde loolu nag mu fàttali ko évoqué ko euh, du dëgëral tam toujours ànd bi nga xam ne classe politique bi war nañ koo ànd maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi ànd googu moom mooy dalal Sénégal ànd boobu mooy taxawal Sénégal ma ne ànd bi mën na nekk tant ñu ngi may waxtaan li bon kay mooy waxtaan ba pare yebal ay kilifa comme yow yoo xam ne am nañ sañ-sañ ci sa parti nga yebal leen ñu waxtaan ba pare nga rocceeku ca la ñu waxtaane woon loolu man duma ko def donc yaakaar naa ne loolu ku ko deful rek yaakaar naa ne euh, dinañ mën a déggoo ndax la ñu doon waxtaane foofu ba ànd ci ba d'accord ci ñun ñëpp ñoo fa nekkoon su suñuy ndaw nekk fa man ndaw yooyu maa ngi ànd ak ñoom tey ñëw fii Euh, donc ñoom euh, ñoo waxtaane loolu ba d'accord d'accord ni bu ñu toxalul élection yi li ñu bëgg a def duñ ko mën a def ndax li fi nekkoon ñun bëggatuñu mu nekk fi li fi nekkoon mooy euh, fichier bi doyuñu woon parrainage bi dañ ko contesté woon nañ ko dindi donc suñ bëggee dindi parrainage te ñu ngi ko defee woon assemblée foog nga dellu assemblée suñ bëggee seet fichier bi foog ñu audite ko ba ñaata weer lañ koy audité na ko suñ ko audité ba pare foog nit ñi binduwaat loolu yëpp dafa laaj temps donc ñu ni woon dañuy def élection yi mois de décembre maanaam fileeg weer loolu mënul nekk alors ku am xel na xam ne mënul nekk te ñoom ña nga xam ne ñoom lañ fa yebaloon itam ñu ànd ci ni mënul nekk dañ ko war a reporter du ñu def dara boo yebalee sa nawle du nangu dara ba pare yow nga di ko dindi loolu bu boobaa dootoo nawloon teg moom. oui je pense que c'est c'est presque public hein. comme vous le savez le le khalife dans la transparence et on les relations de famille euh, qui unissent nos deux pays, comme j'ai l'habitude de le dire. Il a d'abord évoqué ses relations avec les grandes familles religieuses, particulièrement Touba, euh, surtout en présence de l'envoyé du Khalif général des Mourides. Mais il a évoqué aussi euh, euh, des, des, événements qui ont précédé euh, ma naissance et et étayer les relations qui lient son père et le mien. Euh, je pense qu'il l'a dit, j'ai failli m'appeler Mansou, bien que je sois une femme. Et euh, il l'a évoqué encore une fois pour dire tout simplement qu'il ne parle même pas de ma personne, mais qu'il s'adressait à ceux qui m'accompagnaient, c'est-à-dire les militants, les responsables de And Sakhal qui ont bien voulu m'accompagner, qui se sont fidélisés autour de moi et qui continue de m'accompagner. Euh, je pense que nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique et il le sait. Parce qu'il avait l'habitude de me dire qu'il est inutile de polémiquer. Je lui ai rappelé tout à l'heure ses directives et ses instructions. Je lui ai dit que je n'ai pas le droit de faire certaines choses. Compte tenu de nos relations, il n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. Et c'est ça l'essentiel. Je pense que euh, dans la vie, il faut être aiguillonné, il faut être orienté, il faut être encadré. Euh, il a l'habitude de lancer cet appel. Euh, tout à l'heure, il me l'a rappelé, Amélie Tatal et moi, en disant que euh, je vous invite à passer la nuit parce que ça me ferait plaisir. Ça veut dire que les cœurs sont à l'unisson et c'est ce que je demande pour toute la classe politique. Je pense que nous sommes dans cette dynamique euh, et euh, cette dynamique va se consolider parce qu'à chaque fois qu'il y a concertation, à chaque fois qu'il y a échange, à chaque fois qu'on mène une démarche inclusive, je pense qu'on peut toujours trouver un consensus. Et je dis qu'on vient de reporter les élections. Jamais le Sénégal n'a connu un consensus aussi fort. C'est l'opposition qui était contre euh, le report. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui a demandé euh, le report pour régler les, euh, les griefs qui entourent effectivement le processus électoral. Nous l'avons revendiqué, c'est nous qui l'avons demandé. Euh, il y a euh, Ndemdje qui est à côté de moi, euh, qui, est aussi avec moi. Notre, nos deux pleins potentiels sont des responsables du parti. Et c'est le parti qui les a envoyés autour de la table du dialogue, euh, national. Donc on ne peut pas envoyer des responsables de son parti et avoir la malhonnêteté de prendre le contre Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le ferai jamais. Ils sont responsables que moi dans le parti. c'est le parti qui a voulu que ce sont ces deux-là qui nous représentent autour euh, au niveau de la commission politique. À partir de ce moment, j'assume tout ce qui se passe là-bas, parce que ce sont eux qui se sont engagés, les plénipotentiaires, il est là à côté de moi, ils se sont engagés à effectivement euh, avoir un planning, avoir un agenda bien structuré, bien rétabli avec des OS pour effectivement prendre en charge tout ce qu'on nous leur reprochons. Or, parmi les reproches, il y a le problème du fichier, parmi les reproches, il y a le problème du parrainage, il y a le problème des inscriptions fictives. Or, tout cela doit revenir à l'Assemblée nationale pour effectivement être débattu et retourner à la commission pour l'opérationnalisation. Donc pour tout cela, on ne pouvait matériellement pas les élections le 1er décembre 2019.